laylatul xadar ci biir weer wi lay amee moom yàlla moo waxal boppam ne laylatul xadri xayrun min alfi lan moo tax mu wax ne laylatul xadar moo gën junni weer bu fekkee weer wi na leen rek amut amut sens mais lañ cee def ci biir weer wi la mën a indi nit ki ndax junni weer bu ne moo gën junni weer mooy junni weer yu nit ki di jaamu yàlla di yendoo woor di fanaane julli te du mooy yàlla ba am juróom-ñett fukki at ak lu tewe nee benn guddi gi rek nga def ci benn geste bu baax muy saraxe nga ci veillé nga ci guddi gi ñaan nga ci wala julli nga ci ñaari rakka benn benn def lu baax soo ko ci defee am nga lu tollook tey jii dund ku dund juróom-ñett fukki at lu tegal ak lu tegal te léegi soo dund lu toll noonu nga xam ne yàlla nattoon na ne yow kat sa dund du àgg foofu kon léegi day mel ni yow sa dund yëpp gañe nga ci yàlla nag daal di wax ne salaamun daan ne tanazzalul malaikatu wa ruuhu fiha daan ne tanazzalul malaayikatu malaayika yi dinañ ci wàcc malaayika bu baa waxee baatam malaayika mooy ñëpp dinañ wàcc waaye bu ne war ruuxu fiya ak jibril sax dina dikk mooy réyal bés bi ak teddal ko daan ak jibril sax dina ñëw mooy wa ruuxu fiha léegi nag ñoom lan mooy seen liggéey ci bésub laylatul xadar salaamun hiya xatta matla il fajr bés bi de yéen jullit ñi am ngeen jàmm yàlla yàlla defal jàmm yow sooy nuyu sa morom ju da nga asalaamaaleykum mooy yàlla na jàmm nekk ci yow yàlla tudd asalaam di aji jàmm ji su ëllëgee yomal xiyaam ñaan leen salaamun aleykum tibtum fadxulaa xaaldin bés boobu nag wax nañ ne sunu borom képp ku ko fekk boo ci ñaanee yàlla dana ko nangu lépp loo ci def ci lu baax sunu boroom da koy nangu ndax du faral di ñëw bés bu nekk moo tax yonent bi ne dee leen ko nattu ci mujjug weer wi waaye dee leen ko nattu ci bés yu tool yi lu mel ni fukki fan ak ñaar fukki fan benn ñaar fukki fan ñett ñaar fukki fan juróom ñaar am na ñooñ dañ koy def rek ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar 27 27 boo ko defee sa giir dund da am benn bés boo xam di nga daje moom muy laylatul na la dund gum nangu jéggal la bàkkaar su fekkee koy topp ci yeneen bés yi noonu di ko ñeneen ñi ko di ko defee ci calendrier yi ba tey tamit soo ci tombee da nga am loolu kon ñëpp dañ koy làmbut ndax yonente moo ne dee leen ko ci làmbut kon nag alhamdulilah rabbil alamin léegi bu tolloog nag yàlla wax ne wàcce nañ alxuraan ci biir nga jàng alxuraan ci biir guddi ga kon dey daal di mel ni benn xeer bu jam ñaari picc loolu moo tax ñuy xiirtal jullit ñi ñuy fonk weeru koor rawatina ñuy séntu laylatul xadar di ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax tabarkal ndax gis nañ foo xamee ne bi sëñ tubaa xam ne mun naa àllaye birtifaa'i xadri wa kawnu umri ka layalil xadri sëñ tubaa nee na yàlla yëkkati na sama daraja yëkkati goo xam ne nee na àgg na ci ba sama dund gépp am na daraje wàcc waayu guddig Laylatul Qadr kooku nag fi la fi la daraja mën yam kon alhamdulillahi rabbil bi nga xamee ne wax na it kitaabu rabbi kaan li wakuntu lahu walillahi bi sakantu téere bi yàlla bi mu ma nekkal ma nekkal ko wax ne rafa anil quraan rafa an xafada man saaho taqaddumi fan xafada alquran ma yëkkati ba ca kaw tey soo xoolee eh, prix yi ñi def xale ni ñu mokkale alxuraan ca ca ca ca daara yi internat yi waaye ci daara maam jaara ja waaye participation yi ñu participé ci àdduna bi yëpp waaye boo xoolee masalik ji naan nañ fay naafila alquran nga ñëw juma juma Tuubaa juma kër sëñ Chouaïb bu fépp alquran lañ fay naafila kon nga gis ne sëñ bi loolu rek la bëggoon te yàlla defal na ko ko tey kenn ci ñooñu nga xam ne defal na ko loolu mooy sëriñ Chouaïb bu Mbàkke mi nga xam ne bi mu ñëwee yittam jëpp daf ko def jàng ak jàngale ba sëñ bi laa daan wax ne sëriñ Chouaïb bu leen ko teg benn yitte àdduna su ngeen xamoon fi mu ñu faree ci wàllu baatin kon du ngeen teg du teg benn yitte eh, benn yitte àdduna mën a jaamu yàlla yendu nag ci laylatul xadri gii bi mu fi jógee di dimbali nit ñi ba jant bi sox ca guddi gi di ñaar fanu juróom tombeeg bésub ajjuma ba mu ganee woon jamono mu dem dañoo xëy rek ñu ne sëñ Souhaïbou neloon man boobu mi ma fekk Touba gi ñu jàng man dama ne rek xam naa ne da koo def waaye dafa tànn guddi gi rafet rek mu daa dem yoonam kon jërëjëf sëñ sëñ sëñ Thierno kon loolu lañ ci bëggoon a tab tabbal ci kàddu rek mu yóbbal ko ko dégg rek man cee jëriñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.